salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu téléspectateur yu 2STV Big Taf biir Touba saafonte gan yi tey nag maa ngi fi nga xam ni moo di buntu kër Serigne Mountakha Bassirou xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak bépp xalifa généraux nuyu naa leen bu baax wax naa leen nag mooy euh, jouru màggal yor-yor gi weesu na itam ba guddi màggal la ba suba gars yi dañuy màggal gan yaa ngi fi ñu saafonte ak moom nag gis ngeen fi ma ubbitee mooy buntu kër Serigne Mountakha Bassirou xalifa général des Mourides yàlla fi yàgg lool te dañuy waxtaan ak euh, ñi fi nekk moom sëñ Mountakha actuellement mi ngi ci résidence bi takku saanu màggal la ñu wax saafonte gan yi moom sëñ Mountakha mi ngi ci résidence bi waaye man itam damay fas yéene waxtaan ak euh, gan yi nga xam ne ñi ngi fi teg ñoom xool naka la ñuy dundee seen màggal fii nga xam ne moo nekk ci buntu kër sëñ Mountakha waaye fa laa jaaree dox dem ci jumaa ji kon say tama takku saan buntu kër sëñ Mountakha la dem ci jumaa ji ah, ngeen am ko en direct sur la 2STV gars yi bu leen raté ndax màggal gi 2STV mooy ki ko njëkk direct waaye xam ngeen itam chaque année ñu ñëw jox leen ko merveilleusement bien gars yi ngi daanu rek gis nga gars yi ngi daanu ah gars ñi ngi daanu parce que mbégte mi la mbégte mi la ñuy dund mbégte mi la ñuy àndal mbégte mi moo nekk feex gi xanaa ma dem xool Baye Fall yee kaa ma dem xool Baye Fall yee ndax ñoom ñi ngi bunt ñi ngi biir kër sëñ Mountakha di liggéey liggéey bu am solo man xool sama mbokk Baye Fall yi baa ni ngeen def salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk maa ngi xaare maa yaa ngi am tawfeex wala bu baax a baax macha allah yaa ngi yaa ngi lay seetaan rek ci 2STV yi dëgg tey nag ñu ngi buntu kër sëñ Muntaxa dëgg la yàlla na fi yàgg lool te wér ñu ñëw màggal gi tey màggal gi nag nekk loo xam ni mhm. eh, gan yi dañuy bëri lool waaye lu gan ngi bëri bëri koo gis mi ngi ànd ak mbégte ndax mbégte eh, sëñ Muntaxa Bachir dëgg la macha allah mhm. ah, ah ñu ngi lay eh, ziar bu baax magal bu baax mhm. di leen wax bisimilah fii ci daaru Mbindam. Mhm. fii mooy peccum sëñ Basiru. Mhm. fii mooy fii sëñ Muntaxa ne. Mhm. ñi ngay gis nii. ay taalibe yu jógee ba Saalum. kër sang Cees Njaay. fii nag mooy kër sëñ a borom mbégte mi. lan moo a mbégte mi. nit tëb tëb rek di. mbég de déedéet nit mm. mm. tëbu tëb di mbég mm-hmm. ki ki ki kii mbég mm-hmm. daa am luñ ko ah, defal ba ah, tax mu ah, kontaan ba di ko manifesté wu dëgg la li fees ci biir mooy wala ci biti mm-hmm. lan la defal a Mountakha li sëñ Tuubaa defaloon sëñ a Basiru dafa ko sëñ Fàllu dafa ko sëñ Modou Moustapha dafa ko ñi maanaam mboolem kuy njabootu sëñ a loolu mooy lan a loola moy bi sëñ euh, Tuubaa woo sëñ Fàllu mm-hmm. woo sëñ Modou Moustapha mm-hmm. woo sëñ Mor Roxay Busa mm-hmm. woo sëñ Ma Samba ni leen dama leen bëgg a laay biir du ma kenn du ma euh, magu kenn du euh, niyaayu kenn li fi ne moyewul sërxiwul te mu ne suma sàcc su ko jébbalu jaante moo ci tax jot ku ko jaante nag ba jot ci may sa baay di sa mag di niyaay di sa sëriñ loolu la sëñ Fallou jaante woon ban sëñ Fallou moo jaay juróolam jënd ko ak taalibe mm-hmm. loolu sëñ Muntaxa jaayante ba jënd ko mooy moo waral euh, mbég mi ba daal ñu bégal euh, euh, bokk. wax naa leen ko ñi ngi fi nga xam ne moo di kër sëñ Mountakha kër sëñ Mountakha yi nag parce que màggal gi nekk na loo xam ne mbégte mi ñëpp dañuy bég ci màggal gi ñëpp dañuy ànd ak mbég gars damay dem xoolaat ñeneen parce que am na gan yi nga xam ne ñi ngi fi te kër sëñ Mountakha la ñu taamu pour dal fi am na ñoo xam ne sax ndeysaan dañ naan fay dara ñu ne sa kër sëñ Mountakha ah ma xool ñi ngi waaw di la siyaar baax am tawfeex. sëñ sëñ Tuubaa wér kay. saa yow xamee naa la de. boo xamee. naa la de. waaw. kii sama xarit sama mbok la de. dëgg lépp yaa ngi am tawfeex. sëñ Tuubaa wér ana waa Kaolack. sant yàlla baax fan nga départ pentul sëñ Basirou. non maa ngi jógee Ndakaaru Ndakaar laa jógee Ndakaaru nga jógee. naka nga dundee màggal gi. waaw sant yàlla nag sant borom màggal gi wér. Mm. ne lii moom tawfeex dong la mm. nga moom daa tukki woon ñëw mhm. indil ñu ndam mhm. daa ne magal gi bis bu teewee képp koo xam ne mbégtees mhm. sama mbég sa mbég la ñëwal nga sant ma yàlla suñu borom donc duñ def du ñëw sant la ko yàlla suñu borom te sant yàlla nga weesul jaamu yàlla tudd sikuru la bernde waaw ah, loolu kese mooy magal gi fan nga daal euh, maa ngi daal héliport euh, kon ah da nga jóge aéroport ba fii nii Daaru Minam. waaw sëñ Moustapha Mbacke Abbas ku ne xam ne jàmmeer si Muntaxa la. dëgg la moo ñëwoon indi ay barkeelum indi ay xéwal. doon ko ah. indi chaque année da koy def di gën si Muntaxa si waaw incha allah tawfeex acca euh, yi euh, ñu ñu continuer waaw damay dugg foofu damay dugg foofu salaamaaleykum. ah sëñ bi maa ngi lay siyaare. waaw ñu ngi siyaar bu baax. maa ngi am tawfeex waaw ñu ngi sant bu baax. mbégte la ñu àndal de. ci bis bi. Hmm. mbégte la ndax Serigne Touba moo demoon liggéeyal jaami ñëpp liggéeyal hmm. islam hmm. ñëw xettalil jaam bi génnee jaam ci lëndëm dugal leen ci leer ndax loolu rek moom moo am solo li rujaakum mina zulumaati ila nuuri mhm. Serigne Touba dafa génnee nit ñi ci lëndëm dugal mhm. leen ci leer mhm. dugg ci leer googu noonu moom moo waral bis bii tey bisu laay laay la laa la mu woote ñu koy ñu koy ñu koy dimbali ñu ci cant bi waaw kon tey ñun ñëpp ñu ñëw jàpp ci cant bi loolu nag kon kenn ku ne bépp bopp boo gis war naa fexe xam boromam ndax Serigne Touba ci xam yàlla la jóge woon ci xam yàlla la woote dal fii waa kër sang Cheikh Omar Ndiaye mm-hmm. euh, xalifa bi di Baas Ndiaye mu sang say Ndiaye mm-hmm. ànd ak soxna Xadi ñu ñëw fii euh, ba bis bi mm-hmm. bokk bis bi di bisu màggal gi ngir fan nga jógee euh, maa ngi bàyyi ko ba Kédougou. Kédougou Kédougou frontière u Guinée frontière u Mali. fan nga jógee ñëw fii ñëw fii wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. loolu loolu loolu cheikh bi loolu hmm. loolu loolu loolu doy na waar de. Ah. loolu taw feex la de. baax bu baax ata ñooñu ñooñu nag hmm. euh, euh, maa ngi lay sant di la gërëm bég nañ loolu mbégte mi la ñu hmm. àndal daal. Ah, ah, yàlla na yàlla def jàmm. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin nag damay dugg fi nga xam ne ay baatu soxna la ñuy dégg ñi nga xam ne ak ay jàmbaar yi Cheikhul Khadim ay jàmbaar yi Cheikh Ibra Fall di zikar parce que màggal gi moo ni mel te mbégte mi rek la ñuy dund euh, du ñàkk dinañ gis dinañ gis sëñ bi waaw waaw salaamaaleykum ah, am na solo am na solo ana sëñ bi ah mën naa koo gis de acca bismillah salaamaaleykum euh, ñu fas yéene dem gis sëñ bi salaamaaleykum maa ngi chare mbokk maa ngi siyaare wér waay naka taw feexi maa ngi lay siyaare mbokk mi. waaw ñu ngi leen di naka taw feex yi sant bu baax thème eh. bi lañ bëgg a waxtaan ak ci bisum mbégte mi. waaw loolu nag dañ ciy xaar ndigal Pape Sène. Ah. mbirum Pape Sène. Ah. moom moo yor ndigal bi. moo yor ndigal bi waaw baax ñu ndigal jëfe rek. waaw ndigal jëfe rek. ah dégg nga waaw amul muskila amul muskila amul muskila jaajëf. ah aca gis nga zikkar yi soxna yi ñu ngi ñu ngi zikkar bu baax a baax a baax lépp ci mbégte maa ngi siyaare Fall maa yéen a ngi am taw feex tey mbégte mi la de kontaan nañ bég nañ tuuti rek waaw kon ñuy sant di gërëm di sant suñu sang Cheikh Baro Ndiaye di gërëm sang Cheikh Omar Ndiaye di sant yaa di Jatu Ndiaye muy yaay Baay Faal yi di gërëm bàjjan Kamara mi taxawu sang Cheikh Ndiaye ci njaboot gi di siyaare ñun ñu ngi jóge ba Mbooro Ndiaye ngi jóge ba Mbooro Ndiaye ngi jóge ba Mbooro Ndiaye ànd ak Baay Maas Ndiaye seera faalu sang Cheikh Ndiaye gis nañu kon yéen ñëpp mbégte mi ngeen àndal liggéeyal sëñ kontaan naa de ñu bàyyi leen ngeen siyaare yàlla na yàlla def jàmm aca gars yi ñu ngi continé wéyal ñu liggéey ndax euh, euh, dafay am solo ndax gis nga nag euh, mbégte mi tey asamaan si ku gis xam ne gars yi dañoo kontaan asamaan si ni mu def nii ku gis xam ne tey mbégte mi la ñuy dund ñu ngi leen di cheikh bi maa ngi lay siyaare maa ngi am tawfeex ngi am tawfeex mbégte mi àndal tey de waaw mu yaatoo yaatu koy waaw sant yàlla bu baax a baax nan nga koy dundee waaw di sant yàlla mi nga xamante rek maanaam fekkoon nañu ko tey mm-hmm. waa dimbale ñu it ba lu mu métti sang see Ndiaye dimbal nañu ba xamal ñu maanaam lan la ñuy màggal waaw ndax sëñ Baba dafa woote yéen waa penk yéen waa soow mu ne ñëw leen wuy si ci baat bi nga xamante ne mm-hmm. ñun ñoo ci bokk yam muy baatu laa ilaha illallah waaw sang see Ndiaye dimbal nañu ab laa ilaha illallah day di di di turu yàlla te lépp loo xamante ne làmmiñ tudd na ko mm-hmm. nopp dégg ko mu ne bët da cee war a tege tudd loo nañu ko mm-hmm. dégg loo nañu ko te it woon nañu ko kon sant ak gërëm. Tawfekh gaay mi ngi mi ngi ngelaw ndax ndax gis ngeen ni màggal gi bës bii dafay demee nu ni mel taw bi léegi mu taw gaay yi tey waxoon nañu ko màggal gi gis nga ni mu mel gaay yi nañ ko dund ma ngay poussière barke yàlla ah waaw màggal gi tey poussière gi la ñu àndal poussière gi la ñu àndal sama xarit kaay kooku mooy borom tawfeex couture maa ngi lay siyaare mbaa yaa ngi am tawfeex maa ngi jël siyaare bu baax a baax mbégte bu baax a baax a baax naka nga dundee màggal gi waaw sant nañ yàlla bu baax boo gisee mbir mi ni mu demee waaw di nga xam ne nit ñi jaayante rek moo leen fi andi donte que n'importe quelle situation bu am ci dëkk bi terewul ñu ngi ànd ak Serigne Touba di ko sant di xam ne coono yim dajoon ci liggéeyal Serigne liggéeyal yàlla sunu borom ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maam loolee kat coono yi mu ci daj ñun ñu ci daj rek asakaam la wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant di sant waa Désiré bu baax a baax ci taxawaay bi am ci màggal gi ci taxawaay bi ñu am ci wane liggéeyub sëriñ bi fenn fu ci ne rek ñu ngi ko fay yaatal di fa wane ngir seen ak jàmbaarte ba ñëpp képp ku seen di Désiré bi rek mën a gis li nga xamante ne moo xew ci dëkk bi kon li daal ñu ngi ci euh, sant ñëpp di leen ci gërëm ñaan suñu borom yokku liggéey bi yokku taxawaay bu baax barke suñu xadim aja gaay ñu continuer wooyal liggéey bi parce itam xam naa ni léegi mu daw jour màggal la wax tàkku saanu Touba ma continuer xool gaay yi waxtaan ak ñoom Dakar caa nga yaa ngay daw parce xam naa ni taw bi sax damay jaayante ak yéen ci taw bi maa la wax loolu maa booy ci loo ne man maa si jàmm baa yaa ngi toppal oto bi Louen xoolal gars yi fan. Louen Louen. Louen la kañ nga ñëw. man ah barki démb laa ñëw keroog sam keroog di nga ñëw. waaw mais ba sonn loo. non sonn ma. fan nga dal. man. Hmm. maa ngi dal Kër bay Cheikh. Kër bay Cheikh. waaw ata doxalal dem siyaare ji. gars yi ñu ngi gars ngi gars ngi sama mbokk maa ngi lay siyaare. maa nga am tawfeex. maa ngi sant yàlla naka njaay mi. waa Ndiame ñu ngi si kaw mu baax a baax gis a taw ngeen di laal. waaw waaw dañuy profité pour bañ bagage yi daal di yàqu parce que taw bi bu tawee nii bagage yi buñ ko bàyyi si mun na yàq ak yooyu noonu te kon duñu arrangé ak yooyu noonu. dëgg la naka ngeen dundee màggal gi ñëpp doon wax taw bi day yàqal jaaykat yi naka lañ demee ci yéen. waaw effectivement te taw bi passé xaw na yàqu tuuti parce que am na yenn. Euh, kii yoo xam ne taw bi jotoon na kaa yàq mais ñu ngi sant yàlla rek lépp si sëñ bee ko sëñ bi sëñ bee toll noonu rek. kon mi ngeen di dund daal. waaw ñu ngi dund mbégte bu baax. ma bàyyi balaa taw bee ñëw. Tawfekh gars yi ñu ah. euh, euh, gi tey mu nekk bésu 18 safar ñu nekk ci tàkkusaan gi nar a saafoonte gan yi damay dox nii ba jumaa ja nii laa koy fas dox ba jumaa ja ah nii laa koy fas yéene sama gars yi ñu dox nii ba jumaa ja parce que xam nga. ku ma dajal naa waxtaan ak moom salaamaaleykum soxna si na ngeen def bu ma daw yow kaay ñu waxtaan wa da gis muy taw yow yaa gis muy taw yow <laughs> nee na day taw nee na day taw nañ dem euh, euh, euh, mais papi papi nag buñ tawte <laughs> am di waaw man damaa juum am ay buñ tawte damay xool na gars yi ñu jaar ni waruñ jaar ni jeex na maa ngi leen di siyaare taw feex rek ah waaw waaw gaa ngi xewlu gaa ngi xewlu Baye Fall maa ngi saarare naka taw feex yi taw feex rek maa ngi jàmm bu baax far nga jóge man maa jóge Mbour Mbour nga jóge waaw naka mbégte mi mbégte rek naka màggal gi màgg na bu tawee sax bëgg nañ barki maam Serapha bu tawee ñu xuus ci ndox mi Ahmadou xam na loolu maa la wax loolu billaay di ci sangu di ci bégee di ci bóotee xam na jar la nu ne bu doon daw taw ay xeer waaw taxul ñu génn ko baa bég nga ci màggal bu baax a baax mbaa kontaan gën naa màggati musu fee def bu màggul waaye bi da cay gën a màgg. chaque année a yokk mu gis gën a santaat nag di ko gën a sant di ko gën a santale boroomam. barke rasul dinaan cant gi yal nañ koy yàgg a def. amiin waay ku ne yal nañ koy yàgg a def. yàlla yokku la ba nga yëg ko. amiin waay biir ak biti. suba ba ngoon ngoon ba bërsët. ci barke leeru maam Seera Faal. doxal xool sedd na Faal jaajëf tey yi nii laa koy fas yéene waxtaan ak gaay ah kaay kaay kaay dañ koy waxtaan. ndox ah, ndox mi xéwal la. ndox xéwal la yow nga xéwlu ba pare. bu soxla rek barke Ndiak. dëgg la yal na barke jàng nangu. Ah. yal na siyaare nangu. naka xéwlu gi. yaa ñu ngi ci jàmm. gars yi berne nañ la. bu baax lekk nga bu baax. sant rek mbégte mi rek. ah mbégte mi rek. mbégte bu rëy jaajëf waay. aja gars yi ñu daw balaa muy balaa taw bi ni ñu dàqee am di am na ay am di bu ñu fi taw bi fekkee dawal gaaw mbaa nga am jàmm. ñu ngi <laughs> <laughs> sama xarit la wax na lu ko neex wóor na yàlla kii wax na lu ko neex gars yi gars yi daw leen taw mi Dóor yi nañ defaay mbaa yéen am jàmm. ñu ngi jàmm mbaa yokkoo ngay jógee. ñu ngi jógee Saalum. fa ngay dellu. waaw fa ngay dellu kañ ngay kitewaat. suba incha allah mais yow sa dawal gi ñu ngi dawal ñu ngi dawal ñëw yëpp ndax dund nga ci bar barkeelu nga ci berne yi waaw barkeelu naa bëgg nga waaw sant naa tur bi naka la ah, Bamba Cissé ah yow yaay borom màggal gi ah, ah yaay waaw waaw jaajëfatee wàññi leen paas yi <laughs> booy yéegalal sa tubay jaaw yéegalal yéegalal yéegalal yéegalal maa ngi lay xaare yaa am tawfeex yaa yaa ngi cool de <laughs> kii du ko neex la waaye <laughs> wa waa ji lu ko neex la mel na nga def yow yaa ngi ci jàmm mais eh, yow kaay ñu waxtaan rek kaay foo nootu tudd. man awa. foo ah, ah, ah, man awa yow. kaay. sama kaay. wóor na yàlla bu tawee suñ kaw ñun ñëpp fii la ñuy daw ñu dund ko maa lay charré. delloo ziar wér am taw bi alhamdulilah tawee bëgg nañ ah. ah waaw moom kay taw mbirum yàlla moom kay mënu ci dara. ñu xuus ci ndox mi ñu ndox mi boole ko ah ñu ngi nii waaye bëgg a teg reer yi de. waaw waaw ñu ngi yàq mais taw ngelaw bi la ñu xaar mu dal rek. waaw ah, nag gars yi lekk ak suuf si rek mbégte mi la <laughs> jaajëfal tey sama gars yi Cheikh na nga def waay sant yàlla baax baa yaa ngi am sant nañ baax macha allah tur bi naka la Cendou Cissé Cerno Cissé Cendou Cissé Cendou Cissé way ah gi waaye santee ko suñu borom rek xam ne ah. mbégte mi muntu yomb yenn yomb yi barke rasulullah ndax ki tax ñëpp bàyyi seen yitte daa daa defi dajee si nii ku nekk xam ne lu mu jànkonteel si biir géej gi warul mën a yombi nii nag maa la wax loolu ngay ñëw muy jafe ngay togg muy jafe lépp ci biir màggal gi la mu taw ñu lóor ci ndox mi muy taw ñuy defeer ñu muy mu sebet ñu defeer barke ana jawriñ jawriñ kaay ah jawriñ maa ngi lay siyaare jawriñ daayira mbaa yaa ngi am tawfeex waaw maa ngi am tawfeex naka ngeen dundee màggal gi ak daayira bi ñëw fii muy taw ngeen di liggéey muy ngelaw ngeen di liggéey loolu lépp ngir mbégteem Serigne Touba. wallaay ni nga ko waxee noonu rek la ndax bis bi ci boppam. Mhm. boroom da ko jaraloon lu ne. Mhm. kon ñun ñi ko yaa yaakaar. Mhm. war na noo jaral lu ne. ba dencalu ko woon dara. saa bu daan ñëw. da koy waajal. te yàlla dogal na itam. doomu aadama yi wuy si nañ Serigne Touba wuy si giñ ko wuy si nag wuyu gëm wuyu yoon yonent bi sallallahu alayhi moo ko may lii moo mu am mais jëwriñ xam naa ne fi mu toll nii moom yaa ngi xool waañ wi xool gan yi ñi nga àndal ma bàyyi nga liggéey rek lépp sant sëñ Tuubaa am yërmande rek am yërmande bu ñu sañoon lii yëpp xëy na suñ borom dencal ñu ko ba ci kanam tudd waaye yàlla lum lum lum dogal ñun dañ koy dal di nangu yàlla lum dogal ah. bu tawoon bay loor nit ñi di féeyit ah. dañu xam ne suñ borom moo ko dogal ndax inna laa ala kulli shay'in qadirun salaamaaleykum wa rahmatullah mais mhm. bi neex na de waaw non la ñu mel na ma ni café gi noonu la neexee la wax loolu waaye heure berne bi war na ma fekk ma jaxasoo gars yi am ni doo naan de berte ba berte baa ngi ci biir damay ah, bañ a tawte hmm? mais maa ngi ñëwaat ñu maa ngi yow ñu xëccoo affaire yi doy doy jaa ngeen jëf gars yi nañ continuer ñoo ñan ñoo nekk foofu ma dugg ci kër yi ñan ñoo nekk ci kër yi mais am di ah mais mais kaay kaay kaay kaay am di am di damay bañ dugg ci biir kër yi nag am da damay bañ a dugg ci biir kër yi damay bañ a dugg ci biir kër yi ndax fi mu toll nii gars yi nee nañ naa waxtaan ak ñi ci mbedd mi ah barki rasulullah naa waxtaan ak xool gars yi ngay séddoo boisson bi barki rasulullah ay waay sàmm ma ngay ma yow da nga koy jéeri wala da koy jaxase da nga koy jëri wala da nga koy jaxase dama koy jaxase may ma ndax ndax xam naa ne jëmi sëñ Tuubaa day ànd ak ay taalibe yoo xamante ne doy ñaari boisson ah nan ngay doy non dama am taalibe yoo xam ne dañoo bëgg jaxas bi moo tax ñu def nii def loolu ah boisson yi sax dañ koy jaxas barke sëñ Tuubaa lu waay lu waay laa ñu jox ko ndax dama ko wax mu ne ma ñaari bi si laa bëgg mu ne comme daay ma jox sell ko mbokkum taalibe bi ma ànd ko nag barke sëñ Tuubaa barke sëñ Tuubaa foo foo xewloo man maa ngi xewloo kii Cheikh Mamadou Bassir ibn Cheikh Mamadou Fall ibn Sëriñ Tuubaa Eh, waay sama lan lan nga xew maanaam ay tufeeg lépp mboo boo bëgg am na kër gaa ngi nii ah, waaw am na soos lépp la am barke Mohamed loolu laaj ma am fa maay choisir bu yaay choisir jeex na barke ci ba gaa jëfate gaa yi maa ngi charré mais gis nga eh gis nga màggal gi dara dàqul heure bi mais gaa yi ngi jaayante muy taw di ngelaw gaa yi bëgg a daw sëñ bi na nga def sant bu baax foo jugee man maa ngi jógee fii ba Saalum. Saalum nga jógee. waaw waaw yokkoo leen paas yi. waaw ah, ah, yu ah. kay. léegi ñaata ko. ñaata laa. ñaata nga ko. naa safar de. <laughs> ñaata nga fayee ko safar gi moom de ba dem naa ci moom. ah ñaata. ah cinq mille laa mais mais mais ren moom xaw naa cee wàññi tuuti. ñaata trois mille cinq loolu baax na yow safar nga de. safar nga de. barkeel bi. ati gars yi euh, euh, euh, am mais grand maa ngi charré ne jaajëfate gaa yi ngi daw booy ay booy boo ma mbëkkee di nga xam ni barke maa leen di charré gaa yi naka tawféex yaay am jàmm mais foofu baax na bernde yi mat na très bien jaaja jaajëf waay waa fii la waree baal faayal jaajëfate gaa yi ma dem nag fa nga xam ne. yoon buy dem ci jumaa ji direct la parce que dama jógee kër sëñ Mountakha Bachir foofu laa ubbee ndax xam nga jouru màggal ci xalifa général ku lim rek muy sëñ Mountakha yàlla def mu yàgg fi lool te moom laay moom laay sama gars yi maa ngi leen di charré mais fii ngeen ni fanaan ah, waaw ah na foo jógee yow. man maa ngi ba Nganda. Nganda nga jógee. waaw ñëw si màggal gi. màggal sëñ Bamba gi waaw noo dundee màggal rek. benn yi nu mu fa demee. lépp jaamu kay. lan lan nga lekk tey. lekk naa ba suuru. naan ba kontaan. doyal sëkk mais ji waaw waaw waaw. kon léegi lu des takk jóg. toog jag waaw suuf yàlla def jàmm jàmm jàmm fekkee ko ay ay at. amiin fi ngeen tëdd ba woor na gars yi. ah am na sécurité. fi mooy daara ji ana kafe gi. mi ngi ñëw kon mi ngi maa ñëw ci kanam jaa ngeen jëf xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal na def yow. maa ngi yow foo jëm. ndax mi na jëm ci penc mi. ci penc mi foo jóge. daaru marnaan. ah yow da nga jóg daaru marnaan ñëw daaru mais fan nga fan nga jóge ñëw màggal. Dakar laa jóge. yow sonn nga fan ci Dakar. amoo carte. kañ nga ñëw. ñëw na dimanche. depuis dimanche bi teel ngaa màggal si de. ñun ci yoon bi lañ fanaan samedi lañ départ daanaka dimanche lañ fan. kan sa sëriñ. sëriñ Cheikh Saliou. ah macha allah xewlu nga ba pare. waaw xewlu naa ma merci mën ngaa dem damal kay am di am di bu ñu tawtee dinañ xam ni dinañ xam ni waaye kay bu tawtee ay eh, kolul yow kolul maa yor sécurité bi kolul <laughs> mais gars yi ñu continuer rek lépp ci mbégte mi la rek lépp ci mbégte mi la damay dem ci tali bi nag am di damay dem ci tali bi ndax talibi mooy de moo ñuy jëmale ci ci ci ci jumaa ji ah moo ñuy jëmale ci jumaa ji parce que sëñ kenn sëñ Muntaxa sëñ laa jugee xalifa général des Mourides yàlla na fi lool te ànd ak wér war dem ci jumaa ji parce que jumaa ji laay tëjeeg sama waxtaan wi parce que xam nga damay saafanteeg gan yi euh, te mi ngi taw ñoom ñëpp a ngi waaj a daw ah saa da ngay laalli na nga def waay lu tax ngay laalli waaw taw moo tax. da damaa yàkkamti kay gara. ah na nga def. Ah, noo tudd. Bookar. Bookar waaw waaw waaw looy jaay. ay robe laa jaay ensemble.

Graziana. Euh, non, tout doux Graziana. Ah, Vous comprenez français ou pas Un peu, un peu. Il parle bien français. on va parler. on va parler Mais moi je dois partir, mais on va discuter un peu. Vous êtes là pour la quoi nous sommes ici à travailler à Kafrine. Nous sommes des volontaires, on travaille euh, dans le bénévolat. Ah, vous êtes à Kafrine. Pourquoi venir ici à Touba actuellement pour ce moment de fête-là pour, la fête, pour le Grand, pour mhm. On était invités, donc euh, on Hein? Vous connaissez euh, Serigne Touba c'est le guide spirituel, c'est le, grand marabout de Touba. Ah, vous avez acheté ça <laughs> Ah, machallah. Alors, vous savez lire Je le cherche en français, mais je l'ai euh, trouvé comme ça. Mais vous êtes là depuis quand ah, Nous sommes arrivés hier. Avez-vous déjà mangé ce qu'on appelle le bernet, c'est-à-dire les, choses qu'on vous donne à manger là on a été hospité chez un euh, homme ici à Touba et on à a Touba. mangé tout ça avec Vous avez la eu l'occasion de euh, visiter les grands marabouts comme le khalife général Seigne euh, Mountakha Non, non. Nous sommes allés dans la grande mosquée, mais nous sommes sortis par, euh, parce qu'il va Mais pluire. comment vous avez trouvé la grande mosquée de Touba Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment beau. Vous venez de quel pays Eh, Nous sommes italiens. Italiano Mais ici, e il n'y a pas de pizza, il n'y a, a, pas de cappuccino. on, la trouve, mais c'est pas comme eh, celle qu'il y a en Italie, mais, donc euh, Mais très bien habillé en boubou traditionnel. Allez, merci beaucoup. Vous allez dire Djeredjeff et Serine Touba. merci beaucoup. Alors, ce sont des Italiens. Ce sont des Italiens euh, qui travaillent ici au Sénégal, mais ils ont eu l'occasion de venir ici à Touba pour découvrir ce qui s'y trouve réellement et euh, faire euh, découvrir les Italiens ce qui se trouve réellement dans notre pays, le Sénégal, et plus précisément à Touba. Ils étaient dans la grande mosquée. Ils viennent juste de me dire que la mosquée est vraiment magnifique. En terminant, tout en disant de jërëjëf Serigne Touba. gars yi sarati salaamaaleykum. sëñ na nga def waay. foo fan nga jógee nii ay sax ñu ngi ci jannatu lañ jógee. foo jëm jumaa ji. waaw jumaa ji kontaan rek. tawfeex rek waaw tawfeex rek waaw. ak di ñaan yàlla xam di ko fekkee ay at at ak yow ak yow mi tam ngeen fekkee ko ay at at. amiin waay yàlla defal leen seen télé mu jëm ci kanam. waaw waaw 2STV waaw macha waaw yéen a mën fépp kay. waaw yàlla sant. ñu ngi sant wér. ñoom fan nga jógee. parcelle 26. ñëw nañ fi ma xool barki démb. nga màggal si de. waaw teel na ñoo ñëw dañoo ànd ak fédération ndaw Serigne Saliou. Ah, macha allah ñëw màggal fii. waaw ñi ngi dem jumaa ji siyaare ji. fasaale rek waaw fasaale rek. buñ tawtee sax bëgg nañ. Serigne Touba rek. Serigne Touba képp. Serigne Touba ba faw ndax mooy boroom màggal gi. di borom suba tamit. di boroom ñaari rakkandar yi. ndax Serigne Touba kenn du moom. waaw Serigne Touba kenn du moom ndax tayam ju ne daa gàcceel démb tayam ju ne daa gàcceel démb te màggalu ren gi maanaam daa wone waat mbir ndax septembre da di lëf yëfi Serigne Touba waaw ku xool màggal gi ni mu demee nga xam ne kenn du xaadim rasul kenn du Serigne Touba waaw tawfeex rek jaajëf gars yi euh, euh, euh, gis nga nii laa koy waxtaanee ak yi rek ah, bu tawee sax bëgg nañ wóor na yàlla ah jëriñ maa ngi lay siyaare ah saa na aja nañ dem jege jumaa ji balaa muy taw gaa yi nañ dem jege jumaa ji na yàlla car yaa ngi noonu car rapide moom Ndakaaru la jógee borom borom car rapide Dakar nga jógee waaw <laughs> sama gaa yi borom car yi barke Rasulullah yow na nga def gaa ñu dem ci jumaa ja jamono ji parce que gëm naa ni eh, eh, gaa yi maa ngi tuddee aca am am ni ngelaw laa ngay ñëw barke yàlla nii lay nii lay taw nii la ñuy tawte nañu dem am ni nañu dem tey fii ci màggal gi saafoon teg ñi nga xam ne mooy gan yi muy waaj a taw ñuy tourné <laughs> barke Cheikh lépp mbégte mi la lii lépp mbégte mi la ay waay jàppale leen sama papa gaaw jàppale leen ko nañ daw nii rek am di nañ daw nii rek ba yegg du ma ko jeexal tànk yegguma ci jumaa ji challenge la du ma ko yeex daw leen gaaw du ma ko yeexal am di du ma ko jeexal tànk yegguma ci jumaa am di bu doon taw sax nii laa koy continuer jaajëf jëf waay salaamaaleykum sëñ bi maa ngi saare naka taw feex yi ñu sant rek alhamdulilah alhamdulilah nan nga dundee màggal loolu daal sant rek suñu maam ji waaw waaw macha allah màggalu moom neex na macha allah alhamdulilah fan nga dal man maa ngi daal fi euh, Daaru Xudus. nag ak bernde yi. waaw si xasida gi alxuraan fu ma ne sama xol moo tooy ba nga xamante ne mënu moo sax wax. parce si coono laa jógee ñëw si coono. dëgg a mhm. coono liggéey rek sëñ Tuubaa rek la ñuy liggéey yàlla yokk amiin amiin duñ bokk ñëpp. jaajëf mi rek nañ dox gaay am di am di nee la bu tawul duma bàyyi nii laay waaxoo dem ba ci jumaa ji bu tawul waaw maa ngi saara de na def jëlal ma ñii na def yow eh, yow yaa gis muy taw yow <laughs> waaye joxuma la <laughs> gars yi tonton policier ngi ni nee naa leen day taw tànk tànk tawul du ma bàyyi tànk yegguma du ma bàyyi jarul nëbbatu jël naa la <laughs> bàyyi faal kaay naka nga def maa ngi nii maa ngi sant yàlla sant bu wér foo jógee man maa ngi ba Toglu ñëw màggal si fii nii si Touba. fan nga ne Toglu Toglu laa Toglu waaw fu Toglu nekk Toglu mu ngi si euh, débar kii comment dire commune bu Diass quoi bu Diass commune bu Diass waaw jaajëf naka nga dundee màggal gi ah màggal gi moom sant nañ sëñ Touba mi ngi taw jaajëf papi am ni am ni mi ngi taw de wax naa leen ni fekk yegguma yegguma ci jumaa ji bu tawee du ma bàyyi wóor na yàlla nañ dem rek nañ dem rek yaay lay la gaay daw barke yàlla nii la laay waxtaanee bu ma rombee waxtaan ak yaa booy na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm naka nga def fay fan nga jóge ñëw màggal gi ah naka nga dundee màggal gi kontaan nga bàyyi ma bàyyi la balaa mi taw dégg nga aja gaay nañ dem maire bi dafa maa naroon delloo fa ma jóge dégg nga <laughs> bi maa ngi saare maa ngi suur taw fee kay bilaay wala eh, saa bu ma waxati mi ngi suus ci màggal gi de <laughs> waaye yow kii ku ko bàyyi mu ma mi ngi suus <coughs> Ah, waa ji ko ko bàyyi mu ne ma mi ngi suus sones na nga def waay mbaa yaa ngi ci jàmm. bu ma daw jàkkaarloo waxal ak man rek fan nga dëkk. man maa ngi naka nga dundee màggal gi. màggal yi nee nañ buñ def xef buñ makki yow baa defoo loolu. non du ma def mi rek. dawal gaaw balaa muy taw. nànk nànk laay jël gars yi. am di am di nag naa la yëgal leen de fi ñu nii daw daw gis nga am di am di gis nga barki yàlla gaa ngi yóbbu berne yi. ah kaay kaay ma jël kaay kaay ma na nga def. maa ngi fi yaa tudd Modou. foo jugee. Ngunjaan laa jugee. ana waa Ngunjaan séeréer. ñu nga grand yow dinaa door micro bi de <laughs> naka nga def. sant yàlla yaa naka màggal gi. màggal bi neex na de bari na moom. mais nooy waxee jërëjëf sëñ Touba ci séeréer. Ah, mais lakkal séeréer waxal gaay. Ah, sëñ Touba waaw góor. yow déggoo séeréer de. ma séeréer pire la. Sëñ Tuuba waaw góor. waaw góor waaw loolu ma foog ni du olof. kaay ma waxtaan ak sama xarit bi kaay ma sama xarit bi mais maa ngi lay charré. waaw yow dem waxtaan nañ ma ak yow. waaw waxtaan tey ma gisaat la. sama gars yi gis nañ ma da kontaan nañ bu baax. parce ah, que gars nañ la. nee ma moor mhm. ngi toog Ndakaaru gee gis la. Mhm. seen TV maa leen ah. sama 2S 2S. kontaan. dëgg la félicité rek. mais naka lay demee nga ñëw ci buntu jumaa ji teg sa lii di yalwaan baa mi ngi dox. waaw ñuy sant rek. Mhm. waaw liñ ci am daal. Mhm. ñu koy sant sëñ bi rek. waaw di ñaan mu dolleeku rek nag. Mhm. mais ba doo sonn ak buuxante bi. waaw waaw lépp ci ci liggéey sëñ bi rek. ak taw bi. waaw lépp ci liggéey sëñ bi rek. yàlla na yàlla yokk. waaw amin waay defal la jàmm. amin waay xéwal gi saawaan baawaan. amin waay ci barki màggal gi. amin waay kontaan naa de. rajo moom. ah kontaan na ci bu baax. ñi ngi ñaan yokkate bi rek. amin waay jaajëf te taw feex ak tay sir rek sama waay la sama waay la démb laa waxtaan ak moom puus leen balaa ma leen jot puusal waaw <laughs> yaa booy na nga def bu ma daw baa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. yaa am kii bu ma ko toppee daf may yóbbu ma ñibbi bilaay su ma ko toppee daf may yóbbu ma am di waxoon naa la tant que yegg ma ci jumaa ji du ma bàyyi te fee laay taxawoon gars yi ni ci taw bi ak ci ngelaw li damay ñëw ba ci jumaa ji doo ko bàyyi waxoon naa leen loolu muy taw sax dañ koy sant am di mi ngi taw am di am na mi ngi taw ñëw naa fi 2 nekk ci côté jumaa ji waxoon naa leen kër sëñ Muntaxa laay jógee challenge la jógee kër sëñ Muntaxa ñëw ba ci jumaa ji saafonte gan yi muy ngelaw muy taw dama koy def kon je pense que yéen itam ni seetaan gis ngeen li nga xam ne def naa ko waaye lépp mbégte mi rek lañu ñu àndal bég naa gars yi kontaan naa xam naa ne tey mooy sama plateau mujj tey ci màggal gi année prochaine ñu ñëwaat jox leen li kontaan saafante gan yi waxtaan ak ñoom màggalu borom Touba màggalu Touba 18 safar 2023 ngeen ko doon am fi nga xam ne mooy di Touba ànd ceeg toute l' équipe de la 2STV les techniciens les journalistes ànd ceeg les régisseurs ànd ceeg aussi tous les animateurs bég na kontaan naa damay dugg ci biir nañ dugg ci biir ma dem ci gars yi waxtaan ak ñoom foofu laay tëjee. challenge challenge la woon dama ne woon kër sëñ Muntaxa laay démarré ba ci jumaa ji bu tawee sax dama koy tourné donc te jumaa ji fi la 2S nekk damay dugg xool gars yi <laughs> gars yi teel ngeen a fatu nag. teel ngeen a fatu de. waaw mais c'est normal. Ah. taw bi moo xaw a kii mais n'empêche ñu ngi diffuser toujours ah. d'accord mais ngeen dundee ànd ak équipe 2S TV yëpp ñëw ci màggal gi depuis jeudi vendredi samedi dimanche lundi cinq jours yoo xam ne noppalu ko woon. waaw en fait euh, métti na quand mais hmm. liggéey moo fi indi rawatina liggéeyal sëñ Touba aussi mm-hmm, mm-hmm. Euh, luñ ci mënti def rek mm-hmm. dañuy dañuy gis ne maanaam sunu sunu sunu wareef la en fait métti métti dañ koy gérer rek waaw malgré des fois conditions yi mën xaw a métti trop mais ak nit ñu bëri ñii ku ñëw deux sa ngi nii deux sa une équipe ñëw ci màggal gi je pense que lool tamit jàmbaar ay gars yi ay yéen ay jàmbaar ngeen sax yéen techniciens yi xam ne vous êtes les hommes de l'ombre yàlla na yàlla defal. waaw mais yéen yéen yéen ay ñu dañuy ñu ngi si ginnaaw quoi. bu doon yéen ñun feeñ yéenay saari jawkaay kii euh, euh, sama yi ñëw leen ñëw leen damay tëj tey damay tëj Fatima 13 sama xarit leen ñii nag man maaleen leen fan parce que ce sont les les journalistes de la télé et puis mis à part la ñuy def ci télé bi ils nous ont montré que ce sont des gladiateurs ils nous ont montré que ce sont des battants et des battantes ñëw ci màggal gi ñii ñoo nekkoon sur le terrain ñett ñi ngeen gis ak Astou Dione ak Moussa Ablaye Mal ak suñu suñu suñu correspondant bi comment il s'appelle encore Pape Sayer ak Bekay mais damay commencer ci suñu yaay Val bi ah mooy treize une chrétienne battante lu tax ñu koy woowee Soxna Jaara parce que moom itam c'est la première fois mu ñëw Touba mais ñëw liggéey mais sentiroo leen ni benn yoon chrétienne la kontaan naa. maa la gën a kontaan. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax a baax. une première question a nga gisee Touba. non Touba man akay baa ma ñàkk a frappé. Mm. daanaka population yi dañoo suufeelu. Mm. wàccee seen bopp. Mm. boo fu ñëwee daanaka da ngay mel ni comme yaa ngi ca biir. doo xam jullit beeg chrétien bi daanaka lépp man surtout woyoftee population Touba moom may gën a marqué. nga nekk une chrétienne. Mm-hmm. Euh, ñëw màggal Touba mu nekk une communauté religieuse. nga ñëw ci beneen monde. bien vrai que en tant que journaliste da ngay def découverte da ngay lijjanti lépp xam nga lépp mais nekk ci beneen monde boo xam ne la ñuy dund mu nekk une fois ban expérience nga ci am. que rek diine du limite mm. man gawma loolu mm. que ça soit chrétien musulman fépp mm. foo mënti nekk rek mm-hmm. liggéey moo war a jiitu te li ñuy def nii daanaka diine yëpp benn la Sénégal dëkku teranga la mm-hmm. euh, unisson dafa am ci lépp mm-hmm. donc li ni mel rek da koy firndeel ñëw naa am aussi ay collègues yi nga xamante ni dañ ma ko yombal dañ ma daal dalal won ma moo fi ñëw du ma sentir sax ni vraiment chrétienne laa lépp man damay dem ba ne man est man voilà parce que je suis tellement daanaka aw ma limite ci benn sujet fii ci Touba non non fii amul limite ah. fii maa ngi à l'aise tellement te voilà liggéey bu yanj bi nga xamante ni 2 moo ngi koy def vraiment am na solo c'est à souligner merci beaucoup kii sama xarit la moom itam Fatima Tall maa yaa ngi am jàmm ça fait plaisir Euh, merci Big Taf maa ngi lay nuyu di nuyu tous les téléspectateurs de la première chaîne de télé privée du Sénégal à savoir la 2STV. Mhm. la pyramide culturelle. Mm -hmm. ah. mais naka nga dundee màggal gi. màggal gi dund nañ ko ci mbégte ak kontaante vraiment màggal gi neex na mm-hmm. c'était la première fois may gis ay nit yu doy nii en fait. Mhm. ah parce que man c'est ma première fois à Touba. Ah, la première fois. déedéet nag moom lii fit la rek. parce que la mon ami maa ngi lay charré. merci beaucoup yow man c'est ma septième année à Touba. ndeysaan naka nga dundee màggal gi encore ak équipe bu s nga nekk équipe boo xam ne c'est une première fois ñëw mhm. Touba. waaw sant yàlla rek bi mhm. taf xam nga ni li nga xamante ni moom moo di màggalu Touba moom. télévision 2STV. Euh, bu ci defee liggéey bu am solo. Haalpulaar day faral di wax ni gerte ngir te tee ko da ngaawano maanaam euh, ni moom moo di bërëb daanaka boobu moo fa jiitoo mm-hmm. le mérite appartient à celui qui commence même si suivant fait mieux mm-hmm. malheureusement comme ni mu ko waxee démb télévision 2STV yi daanaka sant yàlla ndax lu mu ci def liggéey bi am na solo mm-hmm. bi ñuy door euh, bi ñu amee télévision bi bi ñu ko taxawalee bokk na ci télévision bi ñi nga xamante ni moom moo njëkk def li di direct moo waral chaque année direction bi day daal di yabal fii ay équipe ñëw Euh, dëgtal leen li nga xamante ni moom moo di màggal gi ñun nag suñu particularité mooy euh, ñoo njëkk def li nga xamante ni moom moo di acti pulaar fii ci Dakar daanaka ren moom mooy si sept ans yi may ñëw bi mooy euh, cinquième fois ñuy def li nga xamante ni moom moo di acti pulaar maanaam journal pulaar mhm. def ko comme ni ñu defee journal wolof ci màggal gi ci surtout ci spécial ñu def spécial loolu lu am solo la ñu ngi ci sant di ci gërëm suñu patron Xammee Amadou Li waaye it ñi nga xamante ni ñoo fi yabal mhm. ñoom bi saa su ne mhm. ñu ànd ak équipe yi techniciens yi noo noo ñoom amuñu morom noo ñoom amuñu morom yéen animateurs yi tamit macha allah gis naa li nga def jënd maa ngi sa mais ana nag yi gisuguma dara de non nag yi gars moo nekk nii nag yi la gars yi dag teg ko fii ah, moo nekk ci bool bi ah, non non gars yi waaw waaw jëlal nag yi rek bàyyi gars yi <laughs> aja kontaan naa aja gars yi nag dégg naa ba année prochaine incha allah ñu fekkee ko ci jàmm tal ko man ko ñu dugg ci biir région avant tout ay waay samba <laughs> sama gars yi ba nañ dugg régie ma xool ñun ñoo nekk régie gars yi nekk régie. <laughs> mais Sidi mais Sidi kaa rek Sidi gars yi ñoo ngeen ci màggal bi rek ñëwal mais ci loo ne. yow lii direct kii non non mais baa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm kay naka taw fee yi. waaw ça va de. naka nga dundee waaw Sidi jàkkaarloog gars yi rek. ay techniciens yi laay tëjee émission parce que année prochaine la ñuy ñëwaat. non lii kii la la non direct la live yu la. direct la waaw. noo dundee màggal gi. <laughs> dama soj. <laughs> Diallo gi nii Diallo moom moo moom moo assuré équipe bi indi assuré mission bi moo yor suñu tout tout tout ci question production mais Diallo maa ngi lay nuyu. waaw di la fay big taf mm-hmm. am di <laughs> ak naka nga def gérer équipe bi toute une équipe am na ñoo xam ne c'est leur première fois ñu ñëw fi nga xam ne moo di Touba nga gérer toute une équipe de la 2STV gars yi di leen magnifier di leen remercier ci liggéey bu naaj bi naka la demee woon avant mooy travail bi nga xam ne moo am dans l'ombre waaw en fait bon est-ce que gérer nañ gérer wuñ kenn de gaay gaay c'est une famille c'est une solidarité continue mhm. entre les membres de la 2STV on est déjà solidaire au niveau de au niveau de la 2S donc tey ñu ñëw ñu continuer waat xam nga ay ñoom karaajo xam nga gaay yi jàpp ci affaire waaw ñoom six xam nga uh-huh. ñoom Sidi gaa gaay yëpp ñàpp gaay yëpp jàpp ci affaire bi donc euh, on se gère mutuellement xam nga waaw gaay sacrifier lu bëri nag pour pour que vraiment affaire yi dox nice ñëpp kontaan donc c'est le moment de remercier toute l'équipe waaw ñoom ñëpp ñoom ñoo si jàpp quoi donc euh, man dama ci kii woon rek man maa ne woon ndongo ju mag ji ñu doon yónni rek. mais sama mais mais gars yi bu damay tëj man nga may tëj. mais ci loolu naka nga dundee màggal sant sant yàlla ak équipe bi bi nga nekk ci car bi nekk côté technique naka la liggéey bi demee woon waaw ça alhamdulilah métti woon na mais la lépp yéen ah coono mënu si ñaag ah. mais sant yàlla lépp sant yàlla lekk bu suur rek saa <laughs> kii nag moom ni ma waxee treize rek moom laa koy waxee ki mooy njaago sëñ Fallou <laughs> mais mais mais Fallou Diédhiou xam nga ça c'est un chrétien mais chrétien boo xam ne il fait partie de nos preneurs de son. li tax <laughs> mais ci loolu Fallou Diédhiou. li tax maa ngi lay ziar mais naka nga dundee màggal. waaw ah, ça va alhamdulilah. Ah. Hmm. waaw. lan nga ñëw tuddee sa bopp Fallou Diédhiou. bon gars yi ma ko tuddee ah. <laughs> mais nekk bokk ci communauté mu nekkul am importance ñëpp benn lañ waaye itam nga ñëw Touba gis beneen vie beneen affaire boo xam ne amaana étant technicien di nga koy gis mais nga nekk dans le bain naka la demee. waaw une ñu dund ko ak 2 encore une fois mu nekk euh, beneen expérience bu nga xamante ni mosuñu ko woon dund nekk lu extraordinaire partage gars yi ñu yaatal ñu xam tamit liggéey bi entre équipe bi tamit euh, mu nekk lu nga xamante ni jàngal nañu lu bari quoi maanaam. communauté mouride bi tamit ak yéen à bras ouvert tamit xam nga. dégg naa nag gars yi ne yaa assuré woon lekk gi de. ah du man dong de. ah kan ñëw jaayal gars yi jaay leen. maa ngi murit. am na murit murit. ah murit. murit am di nag. murit moom la ah murit moom fa demee moom. moom moom moo zéro. mais waroon jox de un à dix kan moo nekk ci kaw ci dàq lekk ci gisee. borom caméra bi. <laughs> waaw yow nga am na nag. <laughs> aca gars yi gars yi kii mooy monté bépp élément boo fi gis maa ngi lay charré Diallo charré mais naka nga dundee màggal gi <laughs> sant bu baax alhamdulilah naka nga dundee tamit montage yi élément yi bëri na de trop mais ñu ngi koy gérer gérer ah. Ah, mais mais mais nga ñëw Touba ànd ak bi di gérer seen élément yi jàkkaarloog gars yi nga wax ak ñoom ñëpp xam ne mo élément ba leen gis moo ko maa ngi lay charré Diallo Sarr waaw waaw màggal gi neexoon na. waaw trop trop trop. liggéey bi bari woon na trop quoi eh, Omar jaaf jaaf si waay. <laughs> aja gars fi ma nekk nag mooy euh, car bi fii la ñu la ñuy defee lépp waaye di remercier aussi équipe technique bi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de Dakar euh, ñoom ñoom ñoom Pamaay ñoom Grégoire waaye te am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi mais gars yi dañuy daw techniciens yi ñoo dàq daw fii merci beaucoup amis chers téléspectateurs ça a été vraiment plaisir man aussi euh, ànd ak yéen ci màggal gi ànd ceeg 2STV dama leen koy fàttali dama leen koy fàttali wax waxaat du bëri wax ñun ñooy ñi fi njëkk def direct. Direct Tout Leer fii la aussi di ziare ñëpp ñëpp ñëpp xalifa général lu Mouride Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak bépp xalifa généraux deux yi ca kaw ca kanam Moustapha la woon doon Big Taf Big Taf confrontation la am yem ak yeneen émission yi Moustapha tey moo leen doon assuré bëgg na <laughs> waaw di ngeen ree <laughs> kontaan naa gars ba année prochaine incha allah la suis là portez-vous très bien et di leen fàttali am na programme yu bëree bëree bëri boo xam ne juste après màggal gi ñu ngi waajal continuer les programmes de vacances bu ñu paree dinañ dem ci gàmmu gi dinañ dem ci fête yëpp jaa ngeen jëf.